mais Macky avec la presse là doo ci ñëw wala. bu bu Ndeye Fatou paree boo leen ko daggaatul rek ñu ñëw si. waaw waaw. man léegi nag yaa ma interpellé foofu en tant que journaliste parce que wax dëgg yàlla 2012 ba tey maa ngi fi. di hmm. observer am lu ma fekkee lu ma dund. 2019 euh, fii la ñu fekk ñun ñëpp bi ñu paree ci parenage yi pourtant Karim Wade jàlloon na parrainage Khalifa sàll jàlloon na parrainage. mais après deuxième étape bi lan la dañ leen retenir foofu article lu ñu wax L25 bu code électoral moo may conseil constitutionnel bu tiimee nag dossier yi mu seetee ci anam bu ne kii dina jàll wala du jàll. loolu moo ñuy indi ci 21 yi nga xam ne retenir nañ leen c'est sur que dina amaat beneen filtre man loolu laa gëm parce que ñu ñëwaat indiwaat yeneen pièce à conviction yoo xam ne ne moom la ñuy retenir yenn candidature yi mais lu ji lu lu gën a poussé. man toog naa plateau le 2019 euh, ñu joxe les résultats de la présidentielle jusqu'à 22 heures l'opposition parlait de seconde ba Ousmane Sonko Idrissa Seck Issa Sall Madické Niang mhm. demoon point E def fa def fa déclaration c'était en direct sur Walfadjri 23 mhm. heures minuit Mohamed Boun Abdallah Dionne parle d'un passage au premier tour ma ne noonu lii moom xam naa moom il va raconter sa vie xam naa bëgg-bëggam la wax mais à deux heures du matin on nous dit que euh, le président Macky Sall est passé au premier tour hmm. loolu fii la ñu fekk c'est pourquoi je vous appelle à l'unité parce que euh, moment yi ngeen toll nii su ngeen xeefee tuuti rek dara mën naa romb te du ngeen xam fu mu leen jaar boobu gi bokkul de je parle laay waxee foofu noonu à Dakar en mille hmm. deux mille deux mille dix-sept deux mille dix-sept législative yi jusqu'à 23 heures qu'est-ce qu'on avait même minuit avant muy taw lu ñu la waxoon ne list Dakar bi ñoom Barthélemy bi moo gagné à deux heures du matin qu'est-ce qu'on non c'est Benno Dakar tombe waaw yooyu daf fi am dañ ko dund da ngay toog grande ville yi ñu ne euh, opposition am na fa ndam nga toog déggaat ay zone yu lointaine ñu ñëw indi la ay chiffres yoo xam ne day ñëw renverser toute la tendance loolu yëpp dund nañ ko fi moo tax il faut pas dire que tey jii volonté de changement populaire mën na dem ba vaincre benn machine boo xamante ne mën na am relent wu confiscation du pouvoir. c'est là de Fatou le problème. xam le problème c'est là où c'est pour ça que. xoolal gis nga loolu nga wax loolu moo tax. président Macky Sall di choisir kan mooy adversaire ah. Ah. ndax gis nga dans tous les pays africains les conflits qu'il a eu c'est le tu perds devant qui c'est là où la différence parce que quand tu perds devant quelqu'un qui, au lendemain de la de truc, te félicite, passe à autre chose. Quand tu perds devant quelqu'un qui, buñ ko joxee chef de l'opposition numéro 2, am na ci poste bu mu mën a dem ñu jox ko benn institution, ça l'arrange. Et quand tu perds devant une volonté de changer, ça c'est différent. Soo gisee ñi nga xam ni président Macky Sall xam na ni. Sénégalais yi pare na pour xeexal leen mu ne yéen du ngeen sax bokk ci élection bi parce que yéen. bu ngeen bokkee ci élection yi motivation bi sénégalais yi di am dafay ëpp je vais choisir c'est là où je dis que ñun bukki bu yàbbee waxambaane ca doxin bala ñun acteur politique mais ñun sénégalais yi bu ñu nangoo lii sax du sélection wax na ko léegi géey parce que quand on fait une sélection da jël li gën baax mais lii nekkatul sax sélection da ngay tànn sa bu la neex comme nu nga ko waxee sëriñ tànn sa bu la neex xool kan laay bëreel mhm. ñu ne noo ci boobu ci ñooñu ñuy bëreel am na ci kenn koo xam ni opposition la kon nañ ko dem jàppale c'est-à-dire que on fausse ñun suñu bopp on rentre dans le jeu de Macky Sall ñun xam nga là où il faut qu'on aille c'est pas pour faire focaliser wu ci Ousmane Sonko coûte que coûte parce que c'est mon candidat mm. mais il faut qu'on revienne mm. sur le Conseil constitutionnel parce que c'est l'arbitre du match et l'arbitre du match s'il ne s'il n'est pas su taxawul taxawaay boo xam ne match arbitrage mun na baa ku jouer match bi boo pertee ci yow la l'arbitre du match c'est le conseil constitutionnel c'est la direction générale des élections c'est la c'est la c'est la Sénat ñett ñi ñëpp ci processus bi wane nañu ni ñoom seen taxawaay mi nekkul à l'avantage de l'opposition ni de la population parce que sont complices ci orchestration bi foofu man lay inviter l'opposition pas sur des histoires de na opposition bi xaar ba ñu ne diw moo jàll ñu dem jàppale kooku parce que bu ñu accepté ñu ne diw moo jàll ñu dem jàppale kooku tamit te arbitre yi ma lay wax muy Sénat muy DGE muy keneen ñu ngi taxaw ni ñu taxawee les résultats sera le même waaw parce que le processus sera biaisé. alors donc il nous faut un réveil. Ndeye Fatou nga jeexalee foofu ma ma daanelee foofu. comprendre nga Guèye fi may waxee. waaw mais ñett ñi ci mënul dara. ah ci dara nag moom loolu moom. ñu ñu bàyyi Ndeye Fatou daaneel partisan. voilà parce que unité rek doyul. mais il faut beaucoup plus d'exigence. c'est ça pour la transparence du processus foofu laa leen di woowee combat c'est pour dire que combat bi gagné wu leen ko avance même unité doyul mais transparence dans le processus vous devez l'exiger parce que c'est une condition sine qua non pour que élection yi mën a jaar avec le calme et que kenn du xëy di indi ay problèmes. c'est surtout ça merci ah, <laughs> transparence. bi kan moo koy kan moo koy kii. Euh, Serigne. mais d'abord exiger d'abord le fichier parce que le fichier c'est ça le nœud du problème. fichier bi mooy mooy seen base de données. mais loolu loi moo ko santaane te taxul ñoom ñu def ko. mais loi boobu déjà waroon ngeen exiger pour ñu changer ko parce que processus su parrainage bi bi ñu koy dugal fekk na code électoral bi defoon nañ ci ne candidat yi du ñu disposer du fichier euh, pas avant quinze jours. donc loolu ngeen waroon njëkk a exiger. xeex ko ñaata yoon. ndax bañ koy euh, décider boobu parrainage duggagul woon. ñaata yoon parrainage bi ñu ko fiy voté déggoo li sëñ Salim ngay wax. assemblée les députés de l'opposition. ñun yaakaaroon pas dit ça dama ne parrainage bi parrainage bi du deux mille vingt vingt deux bii lañ ko doon voté waat ci dialogue bi de. mais parrainage bi ñu ko fiy njëkk di voté laa li sëñ Salim ngay wax. Colobane mhm. lañ ñëw taxaw. nañ Ndiaga Ndiaye bu fi surcharge bu client yi wàcc nañ dellu. man fii man man oui mais mais attention. attention attention nag attention. Euh, non parce que dafa am yoo xam ne itamit il faut que ñu leer ci parce que ñu buñ ci tonkuwul du ñu am réew. Euh, parenage bi principe bi dañ ko voté. ba ñu koy voté président de la république proposé ko. ñu yóbbu ko assemblée nationale nous sommes quand même dans une. démocratie représentative. Hein. Quand une assemblée nationale doit voter quelque chose, c'est pas des gens à Sandaga ou à truc qui vont refuser que ce pays-là ne marche pas ou que cette loi-là ne soit pas votée. Non, non, non, non, non, Quand Ablaï Wad voulait voter la loi sur le Seinsal, on est en démocratie, les gens ont voulu revendiquer pour dire qu'ils ne sont pas d'accord sur ça. On a quadrillé la ville à partir de la Médina. en disant qu'aucun citoyen. non non non sëñ Saliou la la CEDEAO a dit que non non non moi je savais que c'est ce que j'allais avoir. non loi sur le quart bloquant mais lan la Sénégalais def. ñëw taxaw buntu assemblée nationale wala taxaw buntu Nations Unies loolu ñaata yoon la taxaw ñaxtu. wax ne lii du jàll mu ne ku am vingt cinq pour cent rek gañe nga ñu manifester loolu moom moo fa am boo finalement mu mujj dellu ginnaaw xam ne lii kat boo xoolee li xew tey buntu assemblée nationale bii nga xam ne sénégalais yi nii da d'accord uñ Macky Sall était mi ngi taxaw ci giri mhm. moom ak son parti nous on était man maa ngi woon TFM maa may ñaa ngi woon ci buntu giri mais bi ñuy voté la loi sur le parrainage sénégalais yi ne dañuy ñëw mais bàyyi leen ñu ñëw ñu xool ba xam moom ci boppam dina ci yëlee ab njàngat. ñii Medina ñii kolobaan la leen kare ne leen doo leen fi dugg tey te doo leen dugg Ndakaaru ba ñoo xam dañ doon liggéey si mu dàq leen. Mhm. lii lii Ndeye Fatou di wax nii ak mën a Maïmouna so ci lu jëm ci conseil constitutionnel. ak Sénat ak DG waa mais mais mais élection lo député yi ba léegi nii l'opposition loolu ñi ngi koy doog gis sax ñun gisuñ ko woon ci temps Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf. opposition yoo xam ne dañuy ñëw buntu DG. E xëccoog police yi buntu ni dañuy dugg biir ministère intérieur ak ministère intérieur ban ministère la ministère intérieur. Hmm. taskatu xabaar yi xam nañ lu fa ne. dañoo yaakaar ne dafa nekk ab ministère bu taxaw noonu rek nekk nekkob état ci tali télé la ñuy wax de bokkul ak ay ministère xaw ma de la femme de la enfant ak ministère éducation nationale de ministère intérieur xam nga lan moo nekk ci biir <coughs> mais ay citoyens yoo xam ne dañu leen a xañ seen ak ak yelleef ñoo jàpp ci giri di xeex ne dañuy dugg ci biir pour dem defari seen i dal nañu ci législative yi dalaat nañu barki dee moo njaay nekk seen patron waaye li xew dans les plus grandes dans les grandes démocraties du fi am nañ leen waxante dëgg alors mënoo nekk le patron mhm. yow yaay choisir ministre de la justice c' est le ministre de la de la justice qui choisit son procureur maître Malick Sall fii la toog ñëpp di ko seetaan mu ne c' est moi qui demandé au procureur de la République d' arrêter Adama Gaye journaliste. mais mais mais yow nga bokk APR. Mhm. nekk ministre de la justice procureur bi. sa sa yaa ko fa teg nga xëy ne ko demal jàppi Ahmed. très bien alors toog ci télé wax ne man maa wax ne. Uh-huh. ba ci arrestation yi ak condamnation yi da nga foog ne gars yi dañ koy def nii rek. man ak Déthié Fall lañ jàppandoo benn jour bi ñuy wax ne Ousmane Sonko du julli ju jumaa waa lu tax ñu dóor ma un mois sursis moom ñu dóor ko six mois sursis même infraction même doxu ñaxtu même. waaw mais dañ naan parce que moom xanaa doful nag ak li muy ambitieux xanaa doful naan day nekk candidat présidentiel moom amee Aïdara laa ko un mois sur rek euh, mais Déthié mii mën naa nekk dara ëllëg nañ leen ko def nangam ñu xooli fa nag appréciation bi nan lay demee. alors li ñu def ci euh, nit man. honorable on ma fii siñ que li ñu dese ci waxtu bariwul te bëgg naa nga <laughs> nga tontu ci kanam ci ci yow ak ñoom Serigne Sallou yëpp ci kàddu yi. Mm, président Macky Sall yëkkati teg ko ci presse bi mais en attendant Serigne rapidement euh, nga ñëw ci ma dem ci ci Bamba balaa ñuy dem ci point boobu. waaw xam nga Maimouna sànq.